salaamaaleykum wa rahmatulah. ok nga ne ci nga ne laaj bu di dikk bi nga ne lan la.
maa ngi tariqun aqsa ila Allah yoon yi gën a gàtt ci.
waaw kay kay ah ci ci moom da leer leer na loon naa ko aqsaru tariqin ilallahi taala wa shadbul wujudil wahbi bi mim xaatil wujudil xaqaani wa huwa amrun yaalamuhu ahlu loolu woon naa ko de waaw maanaam wax naa ko ab sachet yi sachet benn wafdu sachet yi bu ñëw bu ñëwoon fii ci ci xilaafa gi booba Cheikh Mbadou yeeg moom ak Sina Faak ñu Cheikh Naama kër bu rëdd gaa yooyu daal ñoo fa demoon ci kër kër Tuubaa gi di leen tëragal noonu ba ma ko joxee waaja mu xool ko ne ma daal ne ma ah daal cee jaaxle daal dama ne ko aqsaru tariqin ilallahi huwa tariqul mamnu waaw wa huwa shaddu wujudil wahbi bi mu xaati wujudil xaqaani am pour ñu am wax mu ne ma jët ah tariqul mamnu rek loolu kay saraxan kenn du ko wax ma ne ko wa tabatil ilayhi tabtila Cheikh naa ma ko Abdou Wadu ne ko déglu ko xam nga atabatu ilallah mooy al inqitaahu ilallahi taala bil kulliya salaasalaama daana xëy suba ba ba ci dikk ne waaw na na ndax añ am na soxna yi ne ko déedéet mu ne kon war naa mu ne kon ndikk ñu kon waaw wata watal ndigal la de yàllaa ko digal bayli kon suñ saa yu ne ba bayli ko duyut boroomam xel waaye taxu ko daanu ko ko leer na léegi nag loolu ci ci ci maanaam mooy ci ci nga fàtte ak junni jiinu ne ak alaxira fàtte ko fat yàlla seeb xol loolu xanaa moom yartu na xanaa jeex na loolu kenn kenn ko ne mën nga ko fi waaw ci dobu
am na dawrul murid dawrul murid ah lan mooy ab rôlam murid ñun murid murit ci rolam ci lan ci adduna ji wala ci lan maanaam rôlam rek ci noonu nan la war a doxalee ci digganteem ak yàlla kon damay gis ni yenn tijaan yu si bëri daanaka ñoom dañuy damay gis ñenn ñi dañuy farlu ci jaamu yàlla waaye damay gis fii nii ñu bëri daal pour ñu gis ci ku ci ci di jaamu yàlla lu bëri day jafe la yaa ngi dégg xam nga murit gu bees gii moom du murit waaw loolu loolu du murit moom loolu du murit dafa am benn professeur bu bu ñëwoon fii ci ci école excellence bi bu bu suñu suñu bakk bësoo bi ak koor la woon xanaa yaakaar naa xet ma daal sëñ Mamadou nee na moo ko moo ko moo ko fi yebaloon bu def benn muxaadara ab orientaliste la mustashriq la di wax naa nangam Ablaye Ñang kii murit di wax daal ne moom am murit la daal ne man professeur bi bi ma jàngal alxarun awal saani hijri yooyu ni jàng na ko juróom fukki at ma daal jël kàddu ne ko ki la jàngal nag moom jàngul jàngu diine ngir defar ko da koo jàng ngir màbb ko bu tàng jër ma ne ko nun kat du du ñuy du ñuy murid de xoolal jigéen ñaa ngi nii muruguñ suñu doon daa ko ne walantanaa li diina xataa tasturi gis makiyaas nu bi tax a murid kon boo bëggee xam murid demal ci mbindum sëñ bi xam nga kon kon noonu kon noonu li li am nii moom li ñu tuddee paradoxe paradoxe mooy niru niru dara te te boo doon nekk doonu ko loolu mooy paradoxe al mufaaraqa maanaam noonu moom ku ku woote woon murit nga ba noppi te jaamu yàlla benn tubaab Italie la wala fa France daa ab gaa yi masalik boobu suñ suñ sàmbay traduroon yor ko ab diir dikk ni leen ñaara mën a am ki bind masalik déet sëñ bi bindul masaayik wala yéen du ngeen ay ay dongam kon leer xale leer xale waaw bisimilah bisimilah.
ndax ki ñuy tuddee Salik mooy koo xamante ne daa jël wérdu maaxuus kase
jërit Salik ki tasawuf la moom ah tasawuf la daal.
comme maanaam ki bëgg a dugg ci tasawuf mooy ki nga xamante ki nekk ci tasawuf mooy ki jël wérdu maaxuus kase wala une fois que mu boole ak ay yeneen.
maanaam léegi wérdu maaxuus day xam naa. mooy buum gi dox suñu génn ak ak ak sëñ Tuubaa. suñ toll képp ku la jox maaxuus kooka mooy sab sëriñ ci tasawuf a cheikhul xaqiqi yi wa man aataaka al wirda alxaas bi tariqa léegi moom noonu nag moom du tariqa xaraka la yoon wala atariqa huna bi bi bi bi maana al minhajiya al mustafawiya méthodologie bi sala salama doon yare madina loolu la ñu tudde tariqa ci ci murid gi laaw sëñ Tuubaa kon léegi képp koo xam ne saalik nga nee nga mënut a ñàkk nga nga jël wird wi wa illaa nag nga jël leneen loo xam ne dañ la ko tànnal mën naa nekk ba tey waaye wird wi moom mooy buum gi ñuy lëkkale ak sëñ Tuubaa connexion bi mën a am suñu diggante waaw waaw am weddi moom képp kuy murit rek da nga kaa war a jël yét ah déet baat baat baat boobu nag do do ndax gis gisuma suñu doole bi wax loola waaw am na am na am na ñu koy laaj waaye man ah gisuma ko wala boog ñu ñu ñuy gaaral ku mel ne Issa Gueye ñoom Issa Gueye moom loolay wax man nag damaa gis ne man amalu ahli madinati mabda boobu laay jëfandikoo. léegi gi lu tax dégguma ci mag ñi ñu ko daa waxtaani loonu maaxuus amoon nañ ko moom sama bàyyi moom suñ mbëkk Madina la la ndeyam moo ndey suñ mbëkk Madina moo laajoon suñ manaar suñ sama bàyyi ngir ngir daal mu jàppale ko ci liggéey bi sama bàyyi ba ba mu fay nekkee ab diir suñ mbëkk Madina jox ko maaxuus daa dem ci suñ lem jóob jox ko waaye su su lem jóob dana ko demal ci sëriñ kon sa cheikh Umar bii bi laaj ko ci ndigal mu dem mu ne ko man man ngaa dem waaw kon waaw waaw waaw aywa léegi ku bëgg njëgalub yàlla nan lay def
xanaa nag si yu baax yi rek nga nga nga ne ca lu lu lu lu mel ne daana daana ko ko dégg si si Ndiaye Ndiaye Ndiaye maa ngi jégalu doon naa woo sax de ah.
ñu ngi tëb baax waaw waaw kay bisimilah bisimilah soxna si jaay waaw Ndiaye Ndiaye Ndiaye.
sama wéju la ah ah ah ok soxna si Ndiaye Ndiaye Ndiaye baax na dama toog ne soxna si Ndiaye Ndiaye dama dama toog ne dama toog ne bisimilah bisimilah bisimilah bisimilah laaj bi lu lu lu mu doon woon ku bëgg njëgalub yàlla lan la war a def waaw ok kii wuyu ko wuyu ko Mouhamed wuyu ko bismillah ok bisimilah dama toog ne waaw maanaam njëgalu yàlla ku ko bëgg da da ngay mo- moytu kem ci laay tere yi la gën a am solo nag mooy jéggal jaam ñi
jàmm ñi di jéggalante ci seen biir ak ay da- dafa dafa am ku ku ma wax ne dafa am benn dongab daara nee na nee nee na dinkaan ne woon be- benn moroom dongab daara ne ko su su su ma fi bàyyi koo na na na nga ma jullee su ma sëñ bi bu bu mu jullee mu ngi ci daal tërëbee ji waaye ne ko lu lu ci tax mu ne ko sama sëñ bi kat damaa seetlu ci moom ne du jéggale te ko dul jéggale mënut a ñaan jéggal. ba mu nelawee ñu ànd dem ca war ko taxawu donga bi daañu ko ah së- sëñ bi kat diw neewoon na bul ko taxawu neewoon na bul ko bul ko kii ah mu ne ko bisimilah neewoon ma taxaw ko daal di koy may mu taxaw ko ba ñëwee nag mu woo ko ci am néeg ni ko ah waaw léegi lu- loolu moom lu tax ñu ko ah nee na da da yow yow da da- daa seetlu ci yow ne yow doo doo doo jéggale ku ku ku du jéggale nag mënut a ñaan jégal moom xam nga ko kon am solo kon jéggale ci suñu biir waaw loolu loolu ko ko kon moom dana tax ba bis nag soo bëggee ñaan jégal mu yoon maanaam waaw ak ban dama doon laaj maa huwa saadatu fi dunia
ah, bu dee texee ci adduna moom happiness ci a- anglais kooku kooku moom moom moom mooy nga am adduna waaye am adduna tubaab yi ko am de- de- dem nañ ba xam ne du du du texe matière texe mi ngi ci am na benn bindkatub ab nimsa wii la bind na benn téere tarjama nañ ko ci arab mooy atamalluku wal kaynuuna anglais bi mi mi- mi ngi tudd to be or to have daa ko lu am solo dane adduna li fi nekk mooy am mbaa ka doon mu ne tubaab bi nag ñoom da- dañuy am mu ne nag am rek nag taxut taxut a texe li tax a texe mooy nga doon doon doon dara waaw kon- kon kon texe kon moom ci ni ko ex- ex- extrom waxee kon moom doon dara mooy texe léegi nag nga nga doon am mu'min muslim muhsin texe nga ah loolu loolu mooy loolu doon doon dara ah loolu mooy doon dara sikkut
daa am daa am commencé ne ne ne Suisse ak ak ak ak ak ak Suède. mooy ñaari réew yi ëpp ay milliardaires. dafa la xaru ëppee.
de- dem naa fa.
waaw dem naa fa dro- drogue bii drogue suisse boo boo demee seen mbedd mi ni ni gone yi dañuy drogué wu te yor nañ ba jeexal xamatuñ fuñ jëm waaw da- tool bi dinañ jaxal ñoom suisse dinañ jaxal waaw moo tax kon saada dëgg mooy dund diine waaw kay waaw waaw waaw yàlla ñu ko am waaw ak lan
man araada ru'yata cheikh cheikhul xadim xanaa xa- xanaa nag nga góorgóorlu ba ba sa ufuq sa horizon lëkkaloog horizon sa ufuq waaw waaw loolu moom moom loolu moom ndax da da da- saroo gi day set nag su boobaa ba bu doon jaar fii nga mën ko gis xam nga moom mi ngi jëmbeelu moom di di wër nekk ci ay yitteem waaye nag léegi nag yow sa xol ndax set na ba mën koo ba ba ba mën koo gis kooku moom ci ci ci yow lay doon. waaw waaw loolu moom si si si tataxur rek ak tataxur di laab laab lu rek da nga mujj mën naa am laab nag waaw waaye loolu procédure lay doon waaw mën naa nekk te- tey déwén ginnaaw déwén ah waaw waaw yàlla nga ko son ba mu jégal waaw farañu ko waaw si ndii di ak innam ya abdillahi hum.
tamit yaa ma waxoon ma di ko jàng Waaw.
sabu bi da daa bëggoon a laaj si si si ndii di de dañoo wax ne fu ñu koy jàngi suba ngoon dof buy say du du fa yeewoo si ndii di inam na abdillahi moom dafa baax ci se- seytaane loolu jinne moom jinne maanaam tey benn waay benn benn benn waay woonoo fi xaw ma man de loolu nekk ci toit bi xamatuma xamatuma ko turu yi tu- turu yi ci xamu ko mu ne man doomam daa wéri di yóbbu nañu ko hôpital toit bi xamuñ ci dara mu ne ko jël inam na bindee ko bii bii ta ñetti yoon bii takk bii naan bii sango ay fan mu waat man ne ne ne ma wér naa seytaane moom inam naa si gën a gaaw waaw di ko lii mu guddi.
ndax am naa ndigal jël di ko defal.
waaw sikur kay ñun ñëpp nga joxoon ak ñu def ah waaw maanaam di di guddi gi di di ko léemoo ma man inam na sama bàyyi ma ko digaloon ca daara ja ndax dañoo wax ne maa daal ñoo- ñooñu di jóg guddi soo ko dee léemoo du la maal dara man ca ca daara ja laa ko mokkale woon waaw te am na ku ñuy wax xat fakk sëy ndaam ngeen ne ba saa koy waxtaanee inam na njëriñam ak yooyu ci ci école ba mooy jaamea sëy fii boobu boobu ñuy def ma ma daan def nag darsa boo xam ne ci ci ci ci loolu la ko jë jë- jëmale mu ne ma mu ne ma moom maamam maam la wax xuma bàyyam dafa da- da- daanu woon ci soror bu mag bi jamono yi bi bi ñuy liggéey jumaa ji ñu wax ko suñu fàllu si si si fàllu ni ñu ko yóbbu si seen setu seen setu seen setu da- daal di bindulu inam na nen nañ ko ko xol ñu xol ko ko mu daal di xekk moo tax moo tax maam jooju maam la waaye xanaa wala bàyyam man fekk naa dafa denc ba bi bi bi bi nelawee fekk naa ko si mu tam si si si si fële ko keroog mi naan tuddee na doom inam na xar fekk nag nee na nee na loo looloo ko waral inam ji ginnaaw inam ji na jo moo ko sewee te nee nee na fi bu nee na fi ba ba ba magat waaw kon kon kon kon xam nga leer kon leer na ak lan.
waaw yaakaar naa ne ak mooy bu jës bu mooy mu xadima ak ay gis nga mooy wax ak mi daay dii ñu daal di
sëñ abi bu nee sëñ Moodu sama rakk ji nee na sëñ mu Mamour Seye laa ko doon de waaye waaye sëñ Moodu moom fekk na ko suñu wax ko ak gàmm ñeent yi ko def ci guddi wala bés bi la ci sëdd la ci aw yu kenn du la ci ëppale so- sëñ abi bu soxna Aminta ñaan bu ko ci waa barsàq yi neen situwaane man sëñ Mamour Seye laa ko jëkkoon a jële sëñ sëñ abi bu so- so- soxna amit ñaan sëñ bi lé- léegi nag sëñ Modou léegi sëñ Abibu soxna amit ñaan sëñ bi waaye bi léegi kon Soxna ah, Aminta ñaan ci Umu Haadi mu ngi nii. Soxna- Soxna Aminta ñaan ci Umu Haadi mu ngi nii la bokk.
moom ci Umu Haadi la bokk.
ci umaat li bokk waaw waaw waaw ci ci ci la bokk waaw xam nga xam nga ko kon kon loolu loolu moom du du dëgër la xanaa dëgër la waaw kay dëgër la waaw ak lan dama mos a dégg ngay wax xulu wallaahu ni ku amul maa xuus
waaw fu- fukki ak ñaar ñu ñaar yow waaw su su- soxna si moom yor na maaxu sa waaw déedéet yorul baaxul.
ko ko kon soxna soxna si jox naa loolu. le fukki fukki leexlaas ak ñaar. ginnaaw julli gu ne. yéene ci wirdu maxus waaw waaw waaw waaw waxoon naa ko bu yàggoon sax xam naa.
ah ngir saraat.
ah ndax yàlla ndax yàlla ah daa mel ne mos nga ko waxee waaw mos nga ko wax waaw waaw waaw ndax yàlla man bi ma bi ma déggee nga nga joxe ko ci son boobu noonu nga doon def waaw.
bi ma demee dama kaa wax waa kër gi ñi nga xam ne sama yaay sax mi ngi doon wax naan bëgg na ngay ñëw pour nga jox ko na- na- waaw jox naa ko rek jox naa ko kon mën na di ko jëfandikoo noonu la kay waaw waaw waaw waaw waaw noonu la noonu la noonu la kay
Salaatul Faatiha.
ah.
juróom-ñaar fukk ak ñaar yi.
ñaari ah ah waaw ginnaaw gee waaw ah waaw waaw souvent da ko bëgg waaw.
ah waaw waaw damaa waaw bëgg ah nga joxal ma ko.
ah damaa bëgg nga joxal ma ko.
jo- jo- jo- jox naa ko souvent yi waaw jo- du ci nekk secret la yàlla ko sonn bam sarax bakk soog sëñ Tuubaa waaw nun ñëpp rek ndax yàlla ndax yàlla ndax yàlla nun ñëpp rek mu ye suñu boobu yàlla na ko koy yesalaat ci ci ci noonu bakk sëñ Tuubaa
ma déggoo ñu ni wa kaan xaqan ne Sëñ Saliou da kaa fonkoon lool waaw kaaraange rek la kaaraange la daanaka ku ñu wax seen seen seen Fallou Guèye do do dogam seen seen seen soxna sa soxna Asu Gawane rahimahullah nee na ma soxna Asu Gawane nee na foo ko jàngee koñ yi koñ bu nekk ñeent fukki kër ya ya féete foofa seen kaaraange mi ngi ci sa loxo waaw waaw moom moom moom kaaraange dëgg la moom. hum?
ah foo ko jàngee ñeent kër yi.
ñeent fukki xibla ñeent xibla yi. ñeent fukki kër ya ya fa ne seen kaaraange ci sa loxo.
ah xibla bu ne ñeent fukk kër yi ko féete.
ok nga xam ne léegi yow jàngi leen maanaam maanaam fii daairati hifsika Loolu ñoo dëgg.
am nañ digal di ko jëfandikoo ah ci kut kay kut kay kut kay nan lañ koy jàngee moom benn yoon wala benn yoon rek mag ñi nag ñoom xamuñu woon nag di jàng ab lim de moom waaw da- xamu man digguma ko woon ci mag ñi nag waaw gone yi kay xanaa ñu- maanaam ñu- di jàngi xasida. néew ba ca bayit bu mujj ba di ko baamoo ko yooyu moom.
loolu de xanaa nag xanaa nga nga jàpp ne kat xam maanaam wax ji xanaa rek mu neex la nga di ko nga di ko def waaye waaw bu dee sin diidi moom si Fallou Guèye mi nee na ma soxna si gaawan nee na ku ko xam ne daa xat ba mënu koo jàng ñaari béyt yooyu wukkun mooy seen ya ñaari béyt yooyu moom su ko baa moo ñetti yoon doy na ñaari ñaari bayit yi.
cooy taxaloo waaw waaw waaw loolu la moom kon moom mooma waaw moom waaw waaw waxtaan sa waxtaan ma doon déglu tey. ngay wax ci xasida mel jaar mel xaq jaar xaq.
waaw nga am loo ci wax naan bi ko sëñ bi bindee ci Jolof ba njaareem. ne nañ ko wéer du wér.
wala leen wax waaw mu ne xaw ma commanda commanda ba ba mu gëddee
da- dafa romb ci ci ci ci sëñ bu yor këyit wa dañ ko taf ci ab bant nii di ko wërale mu mu romb ko mu daal di ku naan ta taxal mu mu bañ ku maanaa gëdd ko ba mu diggante sëñ bi man de ku maanaa de da- da- da- damaa gëdd ma taxaw mu xool na ko sëñ bi ne ko gisu ko këyit wu la gis lé- léegi nag këyit wu nag mi ngi fii ci nan ndaam lan ndaam nan ndaam gi ne fii ndaam ndaam gi gi ci ginnaaw xaw ma Kébémer
ndaam ci ginnaaw kii bi xanaa gisuma.
ndaam xaw ma ndaam loo ndaam loo Ndaam loo.
dë dë- dëkk fo mbind ma mbind ma fa la ne ndaam.
mbindum si si si si doomam waaw mbind ma.
fo fa ne waaw sëñ bi waaye ko mbind ma la gis de këyit wa këyit ma la gis.
waaw ndax xam nga moom moom ci gëmut gë- gëmut moom maanaam xanaa maanaam day yaakaar ne rek ku ku koy manifesté la wala dara waaw waaw waaye xamul sax ne moom léegi day ba- bari bi bisimilah bisimilah kii waaw waaw waaw waaw loolu rek